فذاق بهم ذرا قالوا لا تقوى ولا تهزم إنا من الجبار إلا من ذاك كانت من الخابرين إنا منذرون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون ويا مدنا قوم شعبا قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا يوم الآخرة si ambiance bi nag la ñu amalee si Masaalikul Jinaan bés bi nga xam ne moom la ñu jagleel wàccee ay kaamil fii si Sénégal si ndigalu xalif général des Mourides li nak ñu amal ko ginnaw bi nga xamne febar bi di coronavirus duggu na ci senegal suñu borom mom da bëgg ci ñun sa su nek ñuy tuub di wat ci mom di sak sarax fatali ko jamono bu ne mo dox serign bi bu jamono deme ba tollu fi rek mu diggal ñu dimbaleeti ñu nañu daan dimbalé jox ñu diggal jox ko julit ñepp nak jox ko umma bi yépp nañu nañu wacce kamil nañu jang karim Yang khasida ñi nga mënu ñoo jang alquran mënu ñoo jang khasida, ñi jang alquran ak khasida ñu toppatoo leen ci loolu lañu ne sa am nañ ci yaakaar ne euh, lam ca gis ba sant ñuko buñ ko defé nim ñuko santé rek den ci am lam ko bëgg inshallah rabbi li wër tamit moy nit ñi nañ wat seen xel ci yalla suñu borom subhanahu wa taala nañ moytu bu baax tamit yenn yi nga xamanteni ci ne dafa jëm ci lu yalla gëremut dina ci lancer appel tamit ñu tamit li jëm ci wàllu alxuraan ji nga xamante ni si ne ñu ngi koy soofantal ci suñu réew te di ko ñàkkal fayda fii ci réew mi lu ñu am lu ne alxuraan moo leen ko may ndax sëriñ bi dafa wax ne jawartullaha bil kitaabihi ilaa duxulil jannatoo dëkkaale na ma ak yàlla ak téeram bi ilaa duxulil janna ba biir àjjana kon nan jàpp ci alxuraanul karim def ci li war jox ko yitte ak li nga xamante si ne moom la yàlla santaane suñu ko defee rek yàlla mën na noo laata fukki waxtu di jot nag jot nañ fee wàccee lu toll si fukki kaamil ak juróom-ñaar taalibe yi nag bëgg laata tisbaar di jot ñu wàccee fi lu ëpp téeméeri kaamil. bi xëyee ci suba ak léegi bi huit di jot lañuy tàmbali kaamil yi yaakaar naa amagu nañ lu toll ci fukki kaamil ak juróom jàpp fukki kaamil ak juróom-ñaar waaw comme ndigal la nag murit moom sëñ Modou Aminta day wax ne ndigal caabi la. su ëppee du ubbi bu yeesee du ubbi te murit ci ndigal rek lañ ko xamee kon bu ñu joxee ndigal dañ koy fas yéene jafe rek ci ni nga xamante ne si noonu lañ ñu ko digalee incha allah. feeg ba ba ñuy julli tisbaar incha allah moom buñ sañoon buñ mënee am téeméer sax danañ ko def ndax jàmmi réew mi jalal nañu ko rawatina ak ndigal li ñu jox. balaa bi nag faaw nit ñi dalal seen xel ne yàlla mooy ki nga xamante ne si ne mooy tege tawat ab jaam nag sañ naa ñaan boroomam. ñaan gi sañ ñaan boroomam nag moo tax sëriñ bi sant nañu wàcc leen alxuraan ngeen ñaan suñu borom mu musal ñu ci balaa boobu. feebar bii di coronavirus nag tombe ak waajtaayu màggalu poroxaan waaye taalibe yi ñoom gis ne amut lenn lu leen di tere dem màggali ndax murit si ndigal rekk lay wéy. lañu amatul sëriñ bi boo xasee jox sa bopp mu mutoo dara ci yow sëriñ bi fu mu ñëw dañ koy wuy yi bu doon ñu bu doon dañu ne ku ñëw feebar bi dal la ñun ñëpp dañuy dee ndax dañuy ñu dem ndax ñun dañoo joxe suñu bopp àddina ak alaxira kon moomatuñ suñu bopp li ñu xam nag mooy ba xam ko ñun mooy ñun dawuñu tawat du ñu daw ku feebar du ñu daw dee du ñu daw dara ñun lu suñu borom dogal ci ñun neex nañu ndax sëriñ bi ñu yaakaar muy Seexul Xadim kat daa wax ne ñett yi moom kenn mënuma ci bi ma ci soxla rek mooy dogal bi nga xam ne suñ borom dogal na ko ci man ne suñ borom lu mu dogal neex na ma ñun dañuy àttewoo ci loolu lu borom dogal neex nañu ndax ci loolu la ñu kon ñun poroxaanoo fu mu mënti doonoo na sëriñ bi woote rek lu mu mën di tombeel luñ ko mën a coow tiitaluñu. di wax ne rek ndigal moom ci diggante murit ak sëriñam loolu. mooy li nga xamante ne si ci lañ mën a jaaree nun texe ba faaw suñu joxee ndigal daal li ci war mooy dalañ ko def waaw loolu daal mooy li nga xamante ne si ne moom gis nañ ko ci daal waaw. sëriñ bi du woote poroxaan mukk ñu naan feebar dugg na ci réew mi ñu naan ak dugg ci di werante am na ak amut ñu ne dañuy fomm poroxaan baa bu ñu dem loolu mënut a nekk mënut a ne kon dañuy màggali incha allahu rabbi suñuy kaar fay nañ ko ba pare yor nañ suñuy contrat. ndigal lii tax yu ñu dem waaye kon bis bi heure bi fekk na dem nañu incha allah bi trois heures ku fi ñëw di nga fekk ñëpp suñuy bagage matériel yëpp jënd ko saako suukar yaa ngi nii tege yeneen ak yeneen a ngi tege kafe yeeg yëpp mat na meew meek yëpp bu ngeen bëggee mu ubbi leen dugg mi dañuy màggali ñun. feebar bii di coronavirus nag mel ni dafa tiital ñu bëri si askan wi waaye autorités yi sénégalaises yi nag ñoo ngi dalal xel yi jàpp ne nañu appliquer li nga xamante ni moom moo nekk mesure d'hygiène yi. Avoir un masque, c'est bien, de se laver les mains et d'éviter aussi d'être en contact avec le nez et par exemple à l'écoulement d'un. Et Inch'Allah, j'espère que ce cas sera, sera mis et, et que ce virus sera éradiqué complètement dans ce monde. Inch'Allah.